bilaay mooy baadoola sëñ Daouda mooy baadoola sëñ Daouda yaay baadoola bilaay mooy baadoola war wóoroo te yaay digle koor gi fii ci koñ boo xëyee kër koor ka fay tàggoo waaye balaa bi dee nga dog koor gi Njaay waaw Njaay nit ñi jaaxal nañ ma de mm-hmm. kenn mënu leen a rek réunion rek ñu dagg seen i rek. daal di ñëw ci réunion seen jikko la de ah fi tool yi a séentu aw weer. nga xam ne xoola xoola xoola fi tool yi daanaka gent bi moom soxna moom. ñu waroon a ñëw ñu dégg nga maam eh, ñu ñu séentoondoo weer. ah ñu ko. wax dëgg yàlla nag doy na war rek. yéeme na doy na ah. waar waaye Mbaw. Mm-hmm. nit ñi ñoo naqaree woo rek. moom koy na waaye jërëjëf ci koor gi ni nga ko dundalee daal rafet na lool. waaw moo ma war ko bu baax a baax. moo ma war jërëjëf waay moo ma war ndax sama maam da ko doon dundal ci quartier bi mhm. jóge fi saa bàyyi di dundal ci quartier bi mhm. kon man su ma nekkee ci quartier bi mhm. dama ciy xar sama tànk tubay dëgg la waaw la ma ci ba tey rek moom laa ji ba sa mbaw man fulaak fere ñu ngi waaw man jikko boobu laa jël ci yow waaw ndax xam naa ne jikko ju fulaak fere ji nga yor waaw kay waaye nag góorgóorlu rek. salaamaaleykum maaleykum salaam. barika. Ah, xale yaa ngi nii. ñu ngi nii. ñu ngi si jàmm kenn mënu leen a xaar. ba léegi ñu ngi leen di xaar ci ci ci dégg nga maam ci seen weer bi. léegi léegi sëñ Ba waaw. ginnaaw ay jam mm, tey la fanweeri fan. danga ma weer wi. waaw a dugub daa mënul ñàkk rek. waaye dana feeñ. moom kay day feeñ dana feeñ. ndax weer du kaamir ñaari yoon. kay léegi nag léegi nag. waaw dañ doon xaare. waaw 19 heures daa 30 jot na. waaw te 35 lañ mën a seen weer wi. waaw léegi nañ ko bokk waajal rek. waaw léegi yéen mën ngeen a toog ngeen bàyyi doon rek ñun ñu xool suñuy bët. waaw waaw bu soobee yàlla moom daanu ko gis. <laughs> waaw soobee yàlla rek ay ca ay ca ay ca. bisimilah mbeng. kii leen <laughs> Euh, Ndiaye. waaw. lee moom biddiw bi la. Ah. am na beneen biddiw boo xam ni nag. moom la daan àndal. am na waaw beneen bu mu daan àndal. Ah. waaw gërëm ni mayulu kenn la ngeen naan weer waa nga ne. ku ko fi wax rek na ngeen ñu bàyyeeg weer wi rek. waaw bàyyi leen ak weer wi ñu. bàyyi leen ak moom rek. waaw biddiw jamono la. waaw boobu laa gisut nag ba mu daan àndal laa gisut. taal sa kaw. waaw gisoo ceeb su sa. waaw weer wala de. Mbaw dafa mag. Ah, déet weer wala kenn du ko ah. a communiqué de. anda waaw ah, eh, waaw kay. eh ana nga. maa ngi nii ka kaay ana ana ana sa maa ngi nii. xoolal fii fii. jël la fa ci suuf. waaw ci eh, côté eh. bi nii. ah yaa ngi koy seen. waaw waaw waaw waaw. Ndiaye lee weeroo la de. waaw dafa ndànk kenn ku teel a communiqué. mooma. ah mooma de. mooma mooma Ndiaye mooma. weeroo feeñ na. weeroo feeñ na yow nag yow booy yow laa wax sa tur bi nga saa tur sa bopp MC xam nga ne ko war a ko. waay loo ci xamul nag. Ah? loo ci xamul nag yow sëñ bi. baayam mi ngi ko tuddee nga maam. turu sell sëñ Cheikh ko tudde mu jël boppam naan ay MC ak ay xës. waaw ma ma ma xoolal kële. ma ma tuuti rek ma ma tuuti. xoolal kële tent bopp bi rëdd ko ay ay di nga maam di ne ko ba ba ba ba mel ne fu fu ay nag di jaar. dajale ma moom benn bis. noonu naa ñoo tey laa dégg. Papa Youssou. Ah. yow sañ ngaa ñëw sama kër ma ma ma tey. Eh, wareegul de. Eh, rek de. loo ba léegi nag. weer koor bi am na benn paa boo xam ne dama ko doon servir jël wuuru takk lii moom du murmuraake la waay eh, eh. Eh. mais paa paa bi tey tey tey tas naa sa yaakaar léegi. yow booy yaa liggéey li. maa ko liggéey kay. yaa. yow booy yaa nekk li ma di. tey tas naa sa yaakaar. paa eh, boobu dëkkul ci quartier bi. mooy seetlu nga leen waxee kon paa boobu Ndiaye. dëkkul bi kon dafay jaar. dafay jaar doon jàll kon. père waaw boobu am na bu ko gën piir waaw père bi xoolal moo ma fekk ma toog. dimbali ma ci Alassane Badiane Ndiaye Diop. waaw Alassane Badiane jaay Diop waaw dimbali ma waaw dimbali ma ci rek ci suuf nag la ne ci suuf suuf la nekk ci suuf da nga koy xool noonu ci ci ci ci suuf lay nekk. ku dëkk ci quartier bi ku dëkk ci quartier bi da ko nekk bay waaj a xam sama loxo booy. waaw yow tamit eh, dëkk ci quartier bi xam lu wax fekk ñu ñuy lekk suñu caakri mu ñëw di waxtaan ak ñun ba wan na ca xam wuy ma may leen ma te leen moo ma jaar day digle sangaay te du sax dal eh, te am na loo jox amul de eh, may leen ma déglu ah, loolu yaa way rek la Issa ko la Issa moom yow maw ngaara naka sax xaatal xaatal ci métti gi nga nekk woon ci koñ bi sa ngaatar ngaatar ji Sinjaay war war wàgg. Sinjaay. Mbow yaa ñàkk jom. moom la xaadim man du ma sax bàyyi laa de. man sax bàyyi laa de. Mbow. Mbow sa xaatar xaatar ju sa ŋaatar ŋaatar ju métti ji nga nekk ci kàttan bi. njuum te burux. yow laay wax yéen seen baay. yow sa borom kër mooy paa bu yàqu jëf bi la ko ci weeru koor yi wasalaam. bilaay mooy baadoola sëñ Ba Outé yaay baadoola bilaay mooy baadoola ñëpp war wóoroo te yaay digle koor gi fii ci koñ bi boo xëyee sa kër koor ka fay tàggoo waaye balaa bi dee nga dog koor gi yaa baadoola bilaay mooy baadoola bilaay yaay baadoola dama leen di génn quartier bi dama leen di génn quartier bi may wax ngeen defar lii lii war ngeen koo defar teg ci seen ñaari kudd dañ dàkk suñu ko ah? dañu dàkk suñu ko suukar ko nii ba ma xaaf ma xaaf eh. su dàkk suñu borom tabaraka wa taala ah maa ma tuuti rek eh, maa ma tuuti rek bul ma yoxoosu bul ma yoxoosu da daloo xaar daloo xaar daloo xaar. daloo xaar. Njaay boobu moo soof. du du ko lëkkaloo ak gerte gi may ma tuuti en attendant ma boole gerte gi yëpp dugg ci. poche bi waaw léegi bi ma nee la bi ma nee la suñu borom. xanaa yéen bi ma yéen ki nga koy delloo. waaw yéen yéen doo yow xanaa caa koy mën a. bàyyi ma yéen ba pare waaye ah. yéen lan ba pare. waaw du ma du ma ay accessoire ay yéen. mag moo xamante ni nag wóoroo ji. ah baa ngay war ba digg ba jëg. ah nga di ko toj. ah nga nga koy. Yeah, that's